ba mi-temps 10 minutes mi-temps 3 minutes dellusiwaat mais ñu fàttali leen ni Bour Sine jël na ñetti avertissement comme li xewoon démb diggante Bour siin ak général bu Malika général bu Malika moo ñu won ginnaaw moo tent bopp bi Bour Sine lañ jàkkaar lool ña ngay demante baaraam ca kaw ña ngay damantey baaraam ca kaw ndeysaan Bour Sine ma ngi koy xool ci ay bët ma nga koy xool seen ak méb demul maa la ko wax ndeysaan ndeysaan ndeysaan ma ngay laaw nag ma ngay daaw loolu nag Dóoru jaaxle la ma <laughs> ndeysaan mbaa Buur Sine du wàcc Buur Sine dugg na ci garde bi dugg na ci garde bi maa ko wax loolu baaxul mbaar na ko mbaar na ko mbaar na ko mbaar na ko moom général Buur Sine Buur Sine ak général jàppante nañu général a ngay dóor mbaa du ko kaawoo luy xew Bour Sine a ngi bëre général moyul jàppal ba pare général jàppal ma ngay dóor mbaa du ko kaawoo mbaa du ko kaawoo mbaa du ko kaawoo mbaa du ko kaawoo mbaa du ko kaawoo mbaa du ko kaawoo ndeysaan e waay nañuy boole ñaar ñu tolloo e waay nañuy ñaar ñu tolloo e waay nañuy boole ñaar ñu tolloo ñaar jàpp na lamb neex na lamb ji ñaari xale yu bëre Boursin dafa bëgg a génn waaye général du ko ko may ndeysaan lii pelanti la ci moom lii pelanti la ci moom moo tax lu ko bëgg a raté Bour Sine dafa jëfandu ndengeñ ndax Zia du daw plaqué ko benn yoon da ko bëgg a dóor ba mu wàcc daa mel ni loolu lay ut Bour Sine jigéen a saaku yi ndax bëggut a jàppante bi arrangé wu ko am na lu xew Bour Sine général fayu na dem na Ardo moom it. Ardo daa am soow wala. Ardo may ko soow. wala meew. Ardo daa am soow wala. Ardo may moom général bu Malika. noonu xool leen bu Malika. waa kër général Malika yaa ngay mer. nee nañ Malika na bëre. na bàyyi xeex bi. nee xeex bi doy na. xeex bi doy na na ko jàpp daan. ndax gàcceeg dóor moom gàcceeg daan da koy fay. da koy fay maa la ko wax. bu wér di laa jël booy mbuur. jël ah. Essa Essa Essa. Essa Essa. Essa Essa. waaye yow boo nekkee entraîneur kii bu ñëwee doo yëngal loxo yi sax mu wàcc coono gi ah. moo ngay kaas nee na entraîneur ba ndax du yëngal loxo yi. mu wàccee coonam. ndeysaan. ndeysaan ñu ànd ak mbër ak a ñëw sonn. kooku mooy Kara Dollé mbokk ndaye koy jur diggante Bour Sine ak ki nga xamante ni mooy général bu Malika. sànq gis naa Kara Dollé di tëkku ki nga xam ne mooy assurance bi mbuur ndax ñime na ko. arbitre baa ngi xoolaat ay jugeem moo ngi consulté ay jugeem. mi ngi leen di laaj ndax pare ngeen sifflé na génn seen diggante diggante Bour Sine moo ngémboo ngémb ñuul li général bu Malika moo ñu féete càmmoñ mu mel ni temps bi li ci des bariwul bu jeexee fii Bour mooy ñàkk ndax Bour Sine dina bëgg jàppante bi am déet jàppante tànk bi de arrangé wu ko woon Bour siin ak général bu Malika général a ngi ko xool ma koy natt ci ay bët arbitre nee na leen ngeen bëre wax na leen ñu bëre arbitre nee leen ngeen bëre diggante Bour Sine ak général Bour Sine ma ngay déplacé wu li des ci temps bi bëriwul li des ci temps bi bariwul arbitre souffle na jox avertissement kii di général joxaat gële muy quatre mbaa du dama yaakaar li amoon démb day amaat maa ko wax dafa rek gam loolu ma xeeñ mi ngi xeeñ gis làmb ji Ami Collé yeneen làmb yu nu foogul dina def nii est xam ngeen ne le premier janvier kenn suuru ko mu ne lu mel nii mën na fay am non non Boy Niang du def loolu. na. bañ a egg ca. Boy Niang ak li mu signature. ma ne li mu signature lépp. yaakaaruma dina yàq bëreem. Balla Gaye ñetti revanche mari bëre. ma kenn du ko ñëw di ko songloo Boy Niang ci ay minutes man maa la wax loolu lii maa la dina doy waar. en tout cas li Boy Niang signature bu ko bëree. Balla am na problème li Boy Niang signature bu ko bëree ju neex la ñuy am xaw ma nag ndax dina ko bëree wala du ko bëree. si da ngay jeexal ko. ma koy génn jeex na. jeex na. xamoon naa ni foofu la. jeex na jeex na. jeex na. général Malika am na ndam. lii taxul mbër yi di bëree.